أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام incha allah mbokk yi ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi tàmbalee tey hijratu ibrahim alayhi salaam ila ard misr ibrahima gàddaayoon na jóge baabil jëm saam bi mu demee foofu tëju ci ni ko yàlla tabaraka wa taala di defee ci yonenti ibrahima déparat laxasaay jël ay bagaasam jëm Égypte war a bàyyee ko Palestine daal di jëm Égypte boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay nu nuy nettali ci istuwaaru jaar-jaaru yonent yi alayhimu salaam istuwaaru Ibrahim jóge gi mu jógee Sham jëm Misr lan moo ko waral ñu ne laqad istamarra ibrahim alayhi salaam fi da'watihi almubaraka falamma wajada qulubu alqawmi mughlaqa la tastaqbilu alkhayr wala turidu an tuqabbila ala allah jalla wa ala farra ibrahim alayhi salatu wassalam alhijra ila ardi misra la'allahu yajidu quluban tastajibu li daawatihi wa tarjiu ila alxaaliqi jalla wa ala ñu ne ibrahim bi mu continuer ci wooteem bu sell bu baax bu tedd boobu nga xam ne woo mooy woo nit ñi jëme leen ci yàlla tabaraka wa taala bàyyiloo leen bokkaale ak xërëm ibrahima bu mu continuer ci wooteem boobu ay at jamono bu yàgg mu fekk xol yooyu dañoo wow xol yi dañoo tëju dënn yi du ubbeeku nopp ya dañoo fat bët ya duñu gis xel ya duñu xalaat xol yi duñu comprendre foofu lépp a fermé wu damay ragal nag li dal Ibrahim dal nu mbaa du ñun looloo nu bëgg a dal ñoo xam ne seen lépp a tëju lu baax munu cee dugg munuñu dégg lu baax munuñu ko nangu xol yi ak xel yi ak lépp dafa lànk bañ a jëm ci yàlla tabaraka wa taala bi Ibrahima gisee loolu mu gis ne ñi nanguwuñu dem ci yàlla nanguwuñu nangu dëgg farra mu daal di daw baatu farra mooy daw yàlla wax na ko ci alquran fa firru ilallah yàlla ku bëgg a dem ci moom amul dox ndànk amul waaxu amul tepp tepp da ngay daw mel ni ku gis gaynde daw boobu moo lay egg ci yàlla parce que li nekk ci sa ginnaaw di la jàpp pour doo dem ci yàlla daa bari wala yàlla bu muy wax pour ngeen yegg ci man dane fa firru ilallah xëlu leen dem ci yàlla xëlu leen jëm ci yàlla xëlu xëlu mooy suñ la koy misaal mooy ku gis gaynde da ngay dox mooy def daw daw daw rek ngay def daw est-ce que ci daw ngay yem da ngay xëlu loolu mooy fa firru ibrahima dafa daw fa farra ibrahim alayhi salaam fan la daw jëm ila ardi misra mu daw dem égypte lu tax mu dem fa mooy la allahu yajida quluban tastajibu li daawati amaana mu fekk fa ay nit fekk fa ay xol ay xel ay jëmm ay nopp ay bët yoo xam ne dinañ mën a nangul yàlla tabaraka wa taala gis nga looloo tax yonent yi ñoom chaque jour dañuy jéem buñ jéemee fii mu tëju ñu dem fee mu tëju ñu dem fee mu tëju ñu dem fee gis nga noonu nga gisee yonent bi mu tàmbale màkk yëf yi dëgër mu def Éthiopie mu dëgër mu dem Taif mu dëgër mu delluwaat dem Éthiopie delluwaat jëm Madinatu Munawwar gis nga chaque jour dañuy jéem di dem di xool di xool noonu loolu ngay dégg ñu ne yonent yi ñoom ñëpp dañoo doon gàddaay pour di seet fan la mbir yi baaxee ñu samp ko foofu Ibrahim jóge na Sham jëm na Éthiopie jëm na Égypte ndax amaana mu fekk fa ay xol yu nangul yàlla tabaraka wa taala yoo xam ne jëmm yoo xam ne nangu nañoo dellu ci yàlla xaraja Ibrahim alayhi salaam wa maahu zawjatuhu saara wa kaana min ajmali nisaai falamma wasala ila misra wasalat al axbaaru ila maliki misra anna rajulan wasala ila misra wa maahu imraatun jamil Ibrahima départ na yegg si Égypte ànd ak soxnaam xoolal ndeysaan xam nga lu doy waar mooy Ibrahim moom moom dong ak jabaram amul keneen ñoom ñaar rek ñoom ñu gëm yàlla ci kaw suuf ñoom ñaar kese moo tax gëm yàlla du lu ndaw mbir mu rëy la du ku la neex mu ñëw ci yàlla moo koy baaxee ay doomu aadama ñu gëm ko yahdi bi illahu man yasha yàlla mooy jubal ku ko neex bu daal di jub dugg ci lislaam ibrahima ngi nii génn jëm misra kan la àndal saara jabaram ndaw soosu ci jamono yooyu moo dàqoon ci jigéen ñi ci àddina bi ci jamono yooyu muy dund bépp jigéen bu mbokkaloon génération ndaw soosu tuddoon saara moo la gën a rafet dem nañ ba egg Égypte information yi commencé daw ci dëkk bi di circuler am na benn waay bu fi ñëw étranger la ndax yéen gis ngeen jabaram ci kooku day moo dàq jigéen ñi ci àddina bi information yi di tas di tas di tas ba ni saraax kër buur bi te buur bi bokk na ci ay loi yu mu tëral ci réew mi mooy bépp góor bu fi am jabar bu rafet loi dëkk bi may na ma ma nangu jabar ji rey la yow loi dëkk bi li mu tëral mooy jigéen kenn du ko nangu ci magam jigéen kenn du ko nangu ci baayam mais bu la neexee nga nangu ko ci jëkkëram nga rey ko buur boobu moom loolu loolu mooy problème am gis nga moo tax loi adduna yi benn baaxu ci ndax loi yi ñi ko tëral ñoom lay aar mais aarul population bi xoolal ñaata ñaata yoon ngeen gis ñu changé constitution Sénégal ñaata yoon buñ gisoon léegi léegi ni am na loo xamante ne da leen di saxal fii rek dañuy changé buñ gisee ne seen intérêt ci xoolal fan yi waa ji ngeen dégg dañ ko rey fii lu ko waral ay changé yoo xam ne tegul fenn yoo xam ne amul fu ñu ko teg lu dul gagné nañ leen foofu ñu bëgg ko sàcc nanguwaat ko ñu ñëw xaaj dagg affaire bi indi beneen kii daal di teg chaque jour changé chaque jour changé lu leen arrangé wul ñu indi moo tax loi yi doomu aadama dara baax loi yi jógee ci yàlla moo normal moo baax te doomu aadama yi fekk dunduñu ko duñ nekk ci jàmm parce que loi yooyu ñëpp lay yemale amul sàmba amul demb ñëpp a ci yem parce que ci yàlla lay bàyyeekoo kenn tegu ko fi yàlla moo ko fi teg te yàlla mi bind doomu aadama yi moo xam lan moo baax ci doomu aadama yi moo tax mu indi leen luwaa yooyu gis nga yàlla nee na walakum fil qisaas xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun ku rey nit nañ ko rey buñ ko essayé woon yàlla nee na ñëppay dund parce que nekkatoo léegi da ngay aas da ngay aar yow da ngay boo bañ a rey waaye mais sa bopp ngay aar parce que xam boo ko rey ñu rey la mais xam nga affaire dafa yomb gis benn foule rek les unités de défense jël sa pistolet tël ci bopp nit mu dee ñu dem suuli ñëwaat ñu ne jeex na dafa yomb waaye comme moom binduñu doomu aadama yàlla moom doomu aadama yi moo tax ñoom yëf yi yomb ci yéen waaye nguuru àdduna war nañoo musal ñuy rey ay nit moo tax perte na ku yaakaar ne àllaaxira du am ba nga nekk ci àddina bi di def loo neex benn waaye dafa wax démb wax ñu am solo mu ne ñuy takk der police gendarme militaire douane lu mu mën a doon war ngaa fàttaliku bis mosoon na am solo woon te ni d'accord mu ne war nga fàttaliku bise mi ñëw doo sol te ni d'accord kon te ni bi benn moment la rek waru la jay waru tax nga pew waru tax nga reew waru tax ngay dépassé nit ñi waru tax ngay def loo war ta def nguur gi kasaalika noonu la nguur noonu la am na jamono nekkoo nguur boo faloo jamono day ñëw da ngay folleeku ci nii wala ci naa bés day ñëw nga taxaw ci kanam yàlla amul benn garde corps anta wahdak amaama rabbik yooyu doomu aadama yi dañ ko war di xalaat mais fekk ñu ngi xool àdduna kese àdduna àdduna rek lu lix ay kër ay immeuble ay nangam ay pajero ay ay ay ay costume ay rek duñ dem de ndax àdduna rek la ñuy gis te àdduna bi continué wul saxul àdduna dafa perte ku topp ci ginnaaw àddina di daw parce que àdduna mënoo daj lépp gis nga multimilliardaire bi ëpp àdduna xaalis àdduna buñ koy niroon léegi sa un million mu jël dolli ci lim yor du ne mukk suur naa yonent bi nee na ñaari mbir mooy suur doomu aadama ñaari mbir ñaari mbir mooy suur nit mooy buñ ko dugalee ci biir bàmmeel ba nit ñi ñibbi mu fan mu yendu fa tàngaay bi jàpp ko yaram bi changé guddi jot ah yépp soppeeku te suba sañu xëy yëf yi néew yi suuf si daal di wàcc ci kawam biir bi toj suuf si daal di remplacé biir bi gémmiñ gi ngaan suuf si dugg ba fees bakkan bi bëri bëri ubbeeku suuf si dugg ba fees bët di luqeeku suuf si dugg ba fees bakkan yi génn nopp yi suuf si dugg ba fees lépp toj suuf dugg ci yonent bi nee na su keroogee ngay suur mais doo too doo suur lu dul lool lii rek mooy tax nga suur mooy lan mooy suuf remplir la ba nga fees del del del del loolu dong dong dong mooy tax nga suur doomu aadama du suur mukk du suuf kon war nañ ci bàyyi xel information bi ba mu dawee ba dëgg kër buur buur bu daal di dégg xabaar bi ne jigéen ju rafet dugg na ci dëkk bi ah ah te moom wa kaana hadha almalik alzalim qad wadaa qanunan li nafsihi wa huwa annahu yajuuzu lahu an yaaxuza almara min zawjiha wa yaqtulu zawjaha fekk buur bi moom fekk na fa benn loi ibrahima ba mu fay dem fekk na fa benn loi mooy dëkk bi jigéen ju rafet bu ne ci buur bi nga jekk waroo fanaan ci ginnaaw beneen góor moom loolu la tëral loolu mooy loi bi waxutuma la sax mu jël la bàyyi sa jëkkër mais bu la jëlee day rey sa jëkkër moom loi boobu la tëral fa jaa al wahyu ila ibrahim alayhi salaam yuxbiruhu bi zalik yàlla daal di wahyu ibrahim ne ko dëkk bi nga ñëw lii nga fi fekk mu daal di wax saara rapidement informé ko mooy soxnaam ne ko fii kat fekk nañ fi nangam te dégg naa ñu ngi wax ci say mbir sa problème yaa ngi nag bis bu buur bi yónnee fii ne la ndax waa ji nga àndal sa jëkkër la ne ko déedéet sama mbokk la sama mbokk la sama jëkkër lu tax lu tax Ibrahima wax loolu Saara mu ne ko wax bul wax sama jëkkër la waxal sama mbokk la lu tax ah pour ñu bañ ko rek pour ñu bañ a rey Ibrahima pour ñu bañ a nangu jabaram non non lu tax mu ne ko sama mbokk sama mbokk nga bul wax sama jëkkër wax sama na ko fii mbokk kay war ngeen ko mën a xam lu waa dëkk bii def Ah.
ne ñaar ñëppay jullit la.
ñoom ñaar rek ñooy ñu gëm yàlla ci dëkk bi te innamal muminuuna ixwa mbokkam la ñoom ñaar rek ñooy jullit jullit ak bokk jullitam ay mbokk lañ ñoom ñaar mu ne ko bu la laajee rek waxal sama mbokk la parce que ñoom ñaar rek ñoo bokk gëm yàlla amul keneen ku gëm yàlla kon mbokkam la ah mbokkam la ci diine gis nga buur bi daal di yónni ay soldaaram arsalal malik junudahu liyatu ilayhi bi saara wa amarahum an yasalu ibrahim alayhi salam anha in kaana zawjaha faqtuluhu gis ngeen mu ne bu ngeen demee laaj leen ko ibrahima sa lan la bu nee sama jëkkër la rek na jaas yi dal ci bopp ibrahim rey leen indil ma ndaw si affaire bi yomb na de ah moo tax buur yal na yàlla may ay buur yu gëm yàlla saa yu yàlla nattoo réew ñu am buur bu musiba musiba rek moo leen di dal buur bu bandi bu kàccoore musiba rek parce que bakkanam lay topp lu lu ko gis lu mu neex lu ko neex rek lay def xoolal lii rek est-ce que loi la yow yow rek yaa bëgg lu baax lu baax ci yow rek la jekk ah da ngay dégg balaa lislaam ñëw Sénégal da ngay dégg waykat yi di way na da ngay bay sa tool ba mu ñor buur ñëw ne la jël naa ko dégg nga loolu bay sa tool ba mu ñor nit ñëw ne la jël naa ko ah nga yor sa doom bu jigéen ñu ñëw jël ko nga yor sa jabar ñu jël soo waxee ñu rey la kon yal nañu yàlla may ay buur yu baax bi gars yi daal di ñëwee fa lamma saaluhu saalu ibrahim fa qaala lahum innaha uxti biñ ñëwee ñu laaj ibrahim ni ko ndaw si salaan la mu ne leen sama sœur la lu mu ci jublu mooy sama sœur la ci diine ci diine ci lislaam wa kaana yaqsidu bi zalika annaha uxtuhu fi lislaam nee na moom li mu ci jublu ci laaj biñ ko laaj ak tontu bi mu leen tontu laaj nañ ko salal la mu ne leen sama mbokk la ci lislaam kii sama mbokk la ci lislaam li annahu lam yakun hunaka azwajun ala lislami fi l ardi kulliha illa ibrahima wa saad gis nga ne jamono yooyu amuloon fenn kenn foofu ñu mbokkoo ci diine kurul ibrahim ak soxnaam saara ah comme wax na loolu mu daal di tontu loolu ñi nga xam ne ñoom lañ yónni woon mu daal di mucc ci soldaar yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon pour rey si ko ibrahima ne soxna si demal nga ànd ak ñoom nga wuy buur bi comme moo la woo maa ngi lay dénk yàlla yàlla wax yu ibrahim ne ko bàyyil soxna si mu dem soxna si dem ànd ak soldaar yi bi mu demee ba yegg ci buur bi buur bi daal di koy laaj ibrahima sàllan la mu ne ko sama mbokk la mu ne ah buur bi lan la tëraloon lu am bu dee dafa am jëkkër mu jël ko rey jëkkër ji bu dee mbokkam la mbarakam la wala baayam la góor bu àndeek doomam wala mu ànd ak mbokkam bu jigéen jigéen kenn du ko jël kon xanaa léegi waroon naa bàyyi ndaw si mu ñibbi waaye comme daa rafet mu ne dugal leen mu ko ci sama néegu biir daal dugal ndaw si saara ñu daal di koy dugal saara daal di xam li buur bi namm jullit chaque jour bu amee jafe-jafe fan la war a làqatu ci yàlla soxna si bañ ko tëjee ci néegu biir bi la xam li kiy namm ci moom mu dellu ci yàlla tabaraka wa taala làqatu ci moom mu ne allahumma in kunta taalamu anni amantu bika wa bi rasulik fa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya alkaafir mu ne yow yàlla yow de xam nga ne man mii ku la gëm laa ku gëm sa yonent laa te sama bopp musuma koo jox beneen góor bu dul sama borom kër ni ma aare sama bopp ba yem ci sama borom kër kese yow yàlla maa ngi lay ñaan bul xiirtal bandi bu bon bi sama kaw yàlla nag ma aar bi buur bi toogee ba xelam nekk ci ndaw si mu jóg daal di dàq soldaar yi mu daal di dugg ci biir néeg bi ndaw si nekk bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy tàllal loxoom ci ndaw si ne da koy laal loxoom bi daal loxo bi daal di crampe woow kon commencé di metti jëm ci xol bi mu yëngal loxo bi ba ñu yëngu mu lem loxo bi bañ loxo bi nag kat gis nga te te li ruslu gis nga baat bi yëpp ay jàppet lañ kenn amu ci fit saay saay si ñëpp ay jàppet lañ amuñu ngor amuñu ngor seen banditisme bi ñu nekkoon bu leen ci dara fekkee ñu mën a muñ voilà fi am na fi benn waaye sa temps yee passé ci ci ci Afrique rek boo xam ne saay saay la saay saay la woon def na crime bu nekk mais keroog bi gars yi ko gars yi jàppee nga dégg naan bu leen maray bu leen maray de. yéen ñëpp ngeen dégg ko ci journal yi.
Bagbo déet.
Bagbo
li mu njëkk a def mooy bu leen ma rey bu leen ma rey
i nit kay boo yambaree di def sa banditisme bañ jàpp la amul fit boobu am ful la bul bul wàcc sa personnalité mais gis nga bandi doo am fit ba saay-saay lan moo dal waa ji mu yuuxu fi mu yuuxoo yuuxu bu metti garde corps yi daal dégg muy yuuxu ñu daw ñëw ne ko lan la mu ne leen sama loxo bi moo moo moo munta lemu moo moo paralysé sama loxo bi moo wow kan ah ñu ne lu ci xalaat ndaw si ne man de mun naa ñaan yàlla mu dej ñu ne ko dimbali ñu mu daal di ñaan yàlla ne yàlla yàlla na nga ko dindi loxo bi balaa garde mi di ma rey yàlla dindi loxo bi lan moo waroon waa ji kooku mu am jom tuub mais saay-saay du tuub mukk ndax yàlla moo ko wax xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gisaawa du ñu tuub jamais lu tax seen yu bon moo bari ba seen xol yi yàqu kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaxsibuun liñ doon def doomu aadama dina toll ci mbon dootul dellu boo bëggoon kaa bëgg dugal ko ci sax du du dellu ñaanal nañ ko loxo bi dañ na xam nga dafa waroon xam ne gis na kéem daanu yàlla mu tuub mu ne ah affaire bi xam naa benn siddit bu yëngatu woon la rek mu delluwaat yëf yi ñëwaat mu yuuxóoti gaar di ñëwaat lan la mu ne leen même problème la amaat ndaw si ne ko ma ñaanati yàlla mu ne waaw ndaw si ñaan yàlla mu dañ lu ko waroon encore kooku ah mu tuub mu ne non non non xaar ma changé position xëy na position bi ma ñëwee la ma changé loxo mu wiiri waat ne day changé loxo loxo boobu même loolu dalaat ko fii nag mu ne ndaw si ñaanal ma yàlla lii bu deñee pare naa ci yow te dinaa la teral ndaw si daal di ñaan yàlla tabaraka wa taala rek waa ji daal di affaire bi dañ waa ji daal di yuuxu garde yi ñëw mu ne leen ibadu anni ibaduha anni soril leen ma ndaw si fa innakum yéen ñi lam ta'tuni bi insaanin indi lu leen ma nit bal ataytumuni bi shaytaan shaytaan yi ngeen may nit ki shaytaan la génneel génneel lu ko fi te na ngeen ko bàyyi mu ñibbi fa mu jóge woon ah te buy dem na ngeen ko defal ay taraanga waaw na ngeen ko defal ay taraanga wa man yatawakkal ala allahi ba waas te wa man yattaqillah yajal lahu maxraj te wa yarzuquhu alquran moom dëgg gis nga boo ragalee yàlla problème boo am yàlla mooy intervenir boo ragalee yàlla problème bi yëpp mooy ndax ragal na yàlla mais boo ragalee yàlla rek yàlla ñëw yàlla du seetaan jaamu yàlla wax na ci quran ne inna la nansuru rusuluna man yàlla may dimbali sama yonent ak gaa yi gëm ànd ak yonent yi ba yow man xiyaam nag loolu moo tax war am confiance ci boroomam tabaraka wa taala sa digganteeg sa boroom nga rittaxal ko sa xol bi sa xel mi bul ci dugal kudul yàlla sa lépp soo koy def nga def ko ngir yàlla mooy sunu xel ak sunu xol yàlla du ci nekk démb barki démb dañ may yónnee benn message ci julli message bi lan la julli dafa jot ñëw ne jàkk ci imam bi ñëw taxaw gaa yi ñëw sàppi ginnaawam imam bi ne allahu akbar bi mu kàbbaree moom moo njëkk a génn jumaa ji moom imam bi jëmm ci moo taxaw xel mi daal ne fes dem këram sàppe premier am am ku génne portable am di manipuler ndax da ngay gis seen ruu yi ni mu koy defee mooy seen jëmm yi ñoo fi nekk mais ruu yi génn nañ nga gis ñett daal di génn jumaa ji taxa fee di waxtaan am ku génn dem marché am ku génn dem këram xam nga lu garaaw mooy bi imaan toogee bay waaj a taayal ñoom ñoom ñu daal di ñëw doog taali daal daal di taay asalaamaaleykum wa rahmatulah. xam nga loolu mooy lan mooy nit ñi début julli gi la ñuy teewlu ak mujjantalu julli gi bu ñu kàbbaree ñëpp kàbbar nañ teewlu nañ balaa ñuy egg wala dolli ku nekk dem nga seeti sa programme am na ku dem ba Kaolack kee dem na ba ngin ngineew kee dem na risaatool kee ngi France kee ngi biir këram kee ngi xalaat reeram ku nekk sa programme yaa ngi koy xalaat bu ñu demee bay waaj a taay rek gisal ma ku nekk rek daal di ñëwaat toog nag ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika ku nekk réglé nga fi si julli gi sa problème looy réglé boo sëlmalee pare li ngay réglé ji ba pare ku nekk réglé na ko seetaan moo bon wallaay seytaan noonu lay def léegi nag boo tàmmee loolu dootoo am julli dootoo am jaamu yàlla jëmm bi rek moo fi nekk mais julli wuloo ko jëmm bi rek moo fi nekk jëmm bi kese kese moo taxaw nii mais ruu bi nekk te julli ko àndul ak ruu du ngeen ci xam da léegi yàlla ko nam image bu garaaw la ci suba si bi ma xëyee démb dama ko taal am ku ma ko wan mu tiit ba léegi maa ngi ko bàyyi ba effacé ko ndax bu garaaw loolu la ñu war a moytandiku mbokk yi ñuy ñaan yàlla suñuy jaamu yàlla ñuy teewlu suñu lépp ñuy teewlu wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Hanzala Hanzala da ko ne man yonent dama am problème mooy li sa problème mu ne bu ma toogee ak yow damay fees dell ak iman te bu ma ñibbee sama kër rek jonjoog sama jabar yi sama doom yi xumb xumb kër gi rek dootuma am dara ma rës leen di na ko ndànk-ndànk saatan fa saa yaa Hanzala wallahi ni ngeen di mel fii ak man su ngeen ko continué woon léegi ngeen di nuyu malaaka yi Hanzala mujj na day jékki-jékki mu ne saaba yi fay leen nuyoo malaaka yaa ngi leen di nuyu day jékki-jékki fi mu toog mu ne ñi mu toog noonu fay leen malaaka yi ñu ngi leen di nuyu fay leen nuyoo doomu aadama dina nekk dina egg ci ngëm boo xam ne boo naanoon xorom boo naanoon ndoxum géej di sax xorom ci yow moo tax ñuy war di góorgóorlu suñu kéemtalaayal kàttan lépp lu ñuy yokkal imaan lépp luy tax sunu diine mu sell lépp luy tax sunu yéene sell ci yàlla tabaraka wa taala ñu koy def nettali woon naa leen benn hadis ci ñetti nit ñu demoon ci xuntuma biñ demee ñu dugg ci xunt mi xunt mi tëj leen ñu ne lan moo leen fiy génne ñu ne yéene kenn ku nekk la nga defoon ngir yàlla kenn ku nekk ci ñoom mu wax lu mu mës a def ngir yàlla ñoom ñett xeer bi daal di ubbi ñetti ñooñu bu fekkoon ni ñeent lañ kenn ci ñun fii toog yaa leen ñeental yow looy wax kenn ku njëkk ki dane man dama amoon sama ndey ak sama baay ma am jabar am ay doom waaye sama yaay ak sama papa moo ma gënaloon sama jabar yi ak sama doom ndax benn bis sama yaay ak sama papa dañ daan reer ba suur ma doog a jox samay doom bu desee benn bis ma ñëw fekk sama papa ak sama yaay nelaw ma denc reer bi sama jabar reerul samay doom reerul ba bët set ñu yuuxu di jooy ba bët set ba bët setee ma jox sama yaay ak sama papa ñu lekk ba suur ma doog a indil sama soxna ak samay doom yàlla bu fekkee loolu ma doon def yow rek yaa tax xeer bi na ubbeeku xeer bi ubbeeku tuuti mais mënuñoo génn keneen ki ne man amoon noboon naa benn xale bu jigéen ma sàkk ci moom boppam xale bu jigéen bu rafet bu mel nu mu war a mel ñépp bëgg ma topp ko ba mu nangul ma dara desul lu ñu ñaar ñu wéet ci néeg ma tëj néeg bi dara desul ñu ñaar ñuy tëdd ba mu simmeeku ñu ñaar ñu simmeeku mu ne ma ragalal yàlla ci man bu laal lu la lewul mu ne ma tiit bàyyi ko mu dem mu ne loolu ma defoon bu fekkee yàlla rek moo tax na xeer bi ubbeeku xeer bi yëngu tuuti mu desul kenn ki kenn ki ne man dama liggéeyloo woon ay ay nit ma fay ñëpp kenn ki dem jëlul fayam fayam ma jënd ci ay jur ma yar ko jur yi daal di fees àll bi bëri bi ma amee ay at waa ji daal di ñëwaat ne ma xam nga ma ma ni ko déedéet mu ne ma man nga man maa la liggéeyee loolu nga war maa fay jëluma sama salaire ma dem léegi nag tey ji laa ñëw jël si mu ne ko àll bi yëpp jur yi fi nekk yaa ko moom waa ji dama déedéet man dama la dama la liggéeyee loolu nag ma war a fay mu ne ko waaw salaire laa jëndoon jur yi yëpp waa ji daal di jël yëpp yóbbu bàyyi bu fa sax mbote mu ne yàlla bu fekkee loolu ma defoon yow rek yaa tax na xeer bu bëgg xeer bi daal di bëriwul dali fële ñoom ñett ñu daal di génn. léegi nag ñoom ñett ñooñu bu doon ñeent lañ nag te ñun kenn ci ñun fi yaa leen ñeental yow looy wax doon kenn ci ñun bi toog ci jumaa ji yaa ñeenteel ñooñu ñett lañu woon yaa leen ñeenteel yow looy wax
loolu na ma àttee si sa yërmande rek loolu moo tax ñu war a góorgóorlu ñuy def aw ma dara ay jëf yu baax yoo xamante ne ëllëg ak si biir bu ñu tollee diggante dinañ mën a sujoon ñaan yàlla ne yàlla jëf jii yow dong yaa taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan ci jëf jooju yàlla nag ma ci dindil sama jafe-jafe bi sama problème bi sama mbir mi sama lii sama lee sama lële sama lee mbokk yi ibrahima alayhi salaam saara daan nay ñaan buur bi daal di yuuxu daal ne génneel leen ma ndaw si ngeen ma indil indil leen ma nit seytaane ngeen ma indil et puis libéré leen ko na ngeen ko jox jaam bu jigéen ñu daal di koy may jaam bu jigéen bu tudd Haajara mu daal di dellu moom saarata ci borom këram Ibrahim mu ngi mujj mu ngi am koom gis nga boo ragalee yàlla lépp loo def mucc nga ciy jële ak koom-koom am am boo ragalee yàlla da ngay mucc ba pare yàlla may la koom loolu ñu naan saaliman xaaniman da ngay boo tukkiwee ragal yàlla booy ñibbisi ci jàmm ngay ñëw te booy ñëw da ngay indaale boo tukkee ragal yàlla boo dundee ragal yàlla da ngay mucc am koom kon yàlla ñu yàlla may ragal mbokk yi li mooy dar si tey bi ñaan yàlla tabaraka wa taala ci gën a ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu